que ça soit la première et la dernière fois nga teg sa tànk si biir bi est-ce yow man amul nga xaju kër yow xaj pour toog nga yow xaju balcon bi nga doon boo dugalee suñu 18 ma chifaay la ci biir bi maa ngi xaar yéen moom bu Je génn ci biir fan nga looy wax suba ba léegi ne fi du taxawaal lan la su ma rey wala ñu rey ki ne looy wax ah way mer wañ problème sur problème non tu peux même pas imaginer tey boucan bi Tay. tey bureau ba moom laa nekkaloon di waxtaan Eva ñëw dugg si fekk ñuy toog yaakaaroon sax man j'étais complice non mais indi fa nga ni problème boo xamante ne ba Elena ñëw bokk ci. ah oui man man boobu ma ngay mel yow tamit di triste. man yow la am boo defee nii damay jaaxle nga ñëw rek def loo xamante ne tàmbaloo ma ko nga ñëw sànni sa saak hmm? tàmbaloo ma li waa reetaan ma xool siña siña siña bañ ñi laa bëgg gis <laughs> waaw man lii laa xam ci yow tamit sama yëf hmm? waaw wi ma instant bi def naa la sa baañ ba pare léegi dañuy jóg ñu dem nga sangu d'accord femme la xaw ma nu laa def heureusement que j'étais près de moi parce dama xam ne xam naa ne benn jour daal. man yow la am muy ci say wow rek di bàyyi say déet su ma la bégaloo kan laay bégal. nee man sama àdduna bi yëpp yow laa am ci sa waaw laay wuyu ci sa déet laay bàyyi mbëggeel dafa compliqué mais ci ñun la yombee gaaw nga def ak sama sama di ko waaw Malick ça va naa def ça va bien ça va bien sant rek ça va alhamdulilah mais def ñooy fi ça va ana mère mère mu ngi fa mbaa mi ngi ci jàmm alhamdulilah ah waaw sama mère an samay baa ñëwul du woon ma ma ne la ñëwagum léegi ci kanam lay ñëw waaw ça va ça va si jàmm dama jug may ko jaru ko jaru ko la sonal moo la sonal gannaaw ah bëggoon mel woon naa c'est vrai jaru ko bi ça va sant mbaa sonn ah non non mi ngi ne la ci kaw mbaa raxul daal ah non non defagul ça ah va jël grand grand daa weex moom. waaw gis nga de. ñooy fii. à propos lu tax ma ñëw fii dama am problème. yow. waaw ndax dama gis sam ak euh, sabi di ànd affaire bi jaaxal ma waaw parce que. sam waaw sam. sam wala Samir. waaw tamit bëgganteeg sabi. Samir waaw Samir la waaw sam sam waaw xam naa ko ñoo nekkoon prison ñun trois prison sam lañ ko doon wax. waaw sam ñoo nekkoon noonu prison ñoo bokkul bi yow li ngay wax leer na la jaawale woo ko est-ce que. sam maa ko gis suñu kër xam ko bu baax ñu nekk bokk benn lal di lekkandoo di tëddandoo. te jaawale moom biir kaso nga ne ma jaawale jaawale woo moom ñun sam lañ ko doon woowee mais samit moom nga moom la dama koo xam ne bu baax mor moo ko gisee muy ànd ak sabi affaire bi jaaxal ma expliqué sa mère sa mère nangu ma déglu ci laa ñëw fii expliqué l'autre jour ñëw naa fii expliqué badu badu dàq na di ma yuuxu léegi na man pour yow mu ne nag naa ñëw ba si yow ndax vraiment vraiment xaw man dèjà man dèjà sama problème man dèjà bi ma def ak sa loolu man pour ma pour ma racheter wala ma defaat dara pour famille bi mën ma mën ma récupérer waat man tam ba bokkaat famille bi il faut ma def dara léegi mu gisee lu bon di ñëw ci famille bi mais naa ci parce que sam mi ngay gis nii arnaqueur la faux type la day xool xale yi jigéen ñi nga xamante ni seen papa dañoo forti ne am xaalis mu fexe la ñu yuus seen maay nax leen bëgganteeg ñoom lekk seen xaalis. problème bobu la am ba tax moko ko prison lu leer la leer. oui mo wàcc dal jere sax muy gudd toogal xaar ba mu ñew xaar kan. nga wax ko ni moo ko expliqué nga expliquer non diko ko kan laay xaar. Badou. non xaar man ma xaar Badou. man man man man man man ma xaar Badou fi ci galle xaar bu mu raay ma yow déjà da fay fenal te dof la yow yow naa ko di ko nag yow tam non yow kay fi mu toll ko fee sama sama affaire yow laa si yaakaar expliqué naa la bu sa waay wax la ban ñu baax nga Malik, man maa la nga toog ba bu ñëwee du la def dara xam la moo tax en tant que maa ngi fi toog pisal du mës a génn yow kay toogal li nga ma expliqué nga wax ko mu mu leer ci boppam bi di man ma toog ay man maa waaru di ko xanaa bàyyi ma dem après yow toogal kii du la def dara yow man bu bu ah information bi ëpp na ma doole mooy ma wax la man laa pour ma dem quoi après nga expliqué ko rek. te ci bi bëgg na ba pare. waaw loolu moom problème la mais pour man kay laa fu mu toll nii mën naa dem. ba tey yaa ngi toog jàpp sa ñaam damaa bëgg nga wax ak man lan xew ba waxul duma xam lan la waxal buykat bu tojul du am njariñ wax ma lan moo xew. yaay dund bi may dund nii ma dee sax moom ma ko gën a. déedéet bul waxati loolu sonn naa imaginer nga nekk ak nit lu nekk ngeen dund ko nga jël sa àddina yépp def ko ci moom mu xëy benn bés mu lay wax dafa takk jabar ba pare bàyyi la ak natt. neexul de neexul moom na te ànduma ci it lii siir def nii ànduma ci de nabu dama wax bay bëgg dé té na bu umpalewul la né man tak gi ànduma ci amul fu ma demul pour sir baña tak magi mais lan la ci mën waxna ba mu né day tak lan la ci mën nabu ma sha allah nag nabu yow jonga ma nga jigen dakku la benn goor jom la ci aduna dama lay ñaan yalla may la ko gën sir goor bayil ma waxu goor du boko nak nabu bir lan nabu da ngaa nabu kuda la ëmbal yow sañ nga ma laaj ku ma ëmbal. ah dama la ko laaj beneen bu dul kan mo may ëmbal keneen ku dul mom la ilaha illallah. bu yow sir, kan la la ah kan la ma ëmbal. bi ngay wax nañu gisante ci laa jëlee ëmb bi. ah deet ba may wax ngeen gisante kat neuma la bo demee na nga ëmb. waxuma la ko de. loolu mo waxuma la ko. yépp yaa ma si duggal ay léegi la ay man li fu ma koy waxee. man daal lu ma metti sama àdduna rek siira ko teg siir gàddu sama àq ba ci kanamu yàlla. man maa ngi am problème lijjanteegu ko pareegul may nga indiwaat beneen problème tegal ma ko lii fan laa koy waxe lii man lii fu ma koy waxe waaye na bu yow tamit nag sa biir bi daa forox de gaaw ngaa ëmb torop boo fi indee leneen daal su tëri mais cadre football moom bu yàggoo nga tëral ko ci suuf Malick sa yaay yi ñaar kese la ma sama tànk football rek ci ne dara nëw ju yàgg batu rek la sa yaay am war a liggéey pour kii nga ci biti jógal ci ee eh. eh jógal jógal ci biti eh, ki dara soxla man lu may doy daam lu la war a wax toogal xaar dogal du ma ko déglu la tax ma koy bii du ko déglu eh ci biti léegi moom doo ko déglu yow di nga toog déglu ma man daam lu ma la expliqué toogal déglu ma yow sa àdduna nii rek la. waxal li may wax ok. ci da nga xam lan moo ko fi indi. sama yoon nekkul ci li ma indi ne nga yow yaay wax waxal. sam sam. eh noppil mën naa ko expliquer ki xam la moo ko fi indi keroog ñëw na fi nga dàq ko problème Samir moo ko fi indi. ex détenu la ex détenu la maa ngi noonu la ko doon kasam. ñooñu la ko doon kaso mag sami quoi. sàmm eh, dégluwuma la sàmm yow mënoo noppi yow tamit. bu ngay firi prison maa ngi na ma la. mag xale yu jigéen ñi la. est-ce que may dégg lekk seen xaalis loolu moo ko tëjoon prison ñoom ñaar ñoom bokkoon même prison bu ñu doon. benn chambre bu ñu doon fanaan prison. benn benn benn loolu nag laa bëgg nga lijjanti ko ba sama xel tey na ci torop information bi moom dafa ma ëpp sax doole. ñoom ñaar ñoo nekk loon prison. sa Samir arnaqueur la. moom la wax. du loolu la. loolu moom ok na mën nga dem. doo ko bàyyi mu toog. ko gisalee gis quoi. Si, nga yow sa responsabilité la ah si parce que fii nga top topp sama nopp bi Samir Samir Samir Samir ku baax laa lu kenn xamul voilà mi ngi nii lépp lu ci am na comme conséquence yow doo ci ma da may susal. na leer bu baax doo ci génn mais lii moom dinaa ko lijjanti. amoon ci yaakaar rek njortu bu rafet laa ci amoon. Gurub bu bi ak lima gis ci internet bi nan la ko dundé met na trop kersa gatché ya Eva mu sax sigi xol papam. shit té nak yaay. problème bu reuy amna na seen kër. mais nak limu la doon bañ wax yaay dina la ko wax. Ya nan la ba jam ya gis nga li dal sama gorob yaa kenn nekkul à l'origine ku dul moomu. non moomu sañul lool loolu. yaay moomu lépp lu mu sañ xamoo ko yaay moomu da koy yar fu nga ko war a yaree mais yaay moomu lu muy def si biti yaay yoo xamoo ko yaay sama leen gis nga foto yi ñu publier noonu xale bu jigéen bi nekk ci photo yi moom ak monsieur Lopez yaay si moomu ki la engagé. Comment Momo orchestré les Il est venu jusqu'ici avouer les pieds. Eva en plus. Mais yo, pourquoi tu ne m'as pas dit ça Yo, tu protèges Momo. Mais je ne protège pas Momo. c'est toi que je protège. Y'a d'un faible. Amène le ramène le voir pour dire le sonore. Mais les plus amis, man, nous le voir. Faut que moi, j'aime Mais j'ai tout fait. Y'a deux façons de médiation. J'aime def. Entre Momo, pour me que ça m'a je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre lui. Oke, kan day bëgg a dee. yaay ak lu munti am yaay leen man xam naa ko yaay moom il m'a mis en mal ak sama jabar parce que diggante mag Eva demeetul noonu non, yaay man maa ci nekk mal à l'aise léegi nag man sama góor bu góor bi dama ko xam du bàyyi te su yaay il aura des problèmes avec lui dina ko def lu bon ci digg dëkk bi te su boobaa nag yaay. conséquences yi kenn xamul fu mu mën di jëm. man kay dinaa wax ak moom man moom dinaa wax ak moom. je compte vraiment sur toi maman. yaay dafa lépp loo mën. ah moom moo de soppeeku na moom moo changé naa ah. tey xarit yu bon rek a ko ci dugal parce que man dama koo yar fa ma ko war a yare yar ko ci diine te xam naa ne xolam mu mais àndandoo yu bon rek moo tax mu soppeeku nii. ne t'en fais pas dinaa wax ak moom incha allah. Nah def Samir. ça va bien yow ci jàmm. ça va ça va maa ngi ci jàmm waaw ça va. waaw tey man bëggoon naa ñu waxtaan. parce que daa lu ma dégg. ma bëggoon nak laaj la ndax dëgg la damaa dégg da nga def prison ma ya, bëgg xam ne dëgg la wala du dëgg. mau. dëgg la def naa prison mais prison jombul kenn nit yu baax yi sax da nga fay dem. waaw dëgg la jombul kenn kilifa diine kilifa aada ku ne faa

et def naa prison léegi lan la woon. lu taw lii laa xamul lan moo ko fi jar moom moo wër nga changé de nee nga daal wax rekk lañu dëkkee na fexe ba sa yaay bu wàccee bul ko génnee sa kanam yooyu. waxtaan ak jubboo moo ñu fi indi man gi ni waaw hmm. hmm, yow ya, defal ni lula def ni dara ya? yow ya, loo defati ni ci yalla bon maman bo gisee mo ñëw fi tay c'est parce que lu fi jotta xew beuri na te war nañ ci wax momo xamna fi mu toll ci yow yow tamit xamna fi nga toll ci mom su ma nu ma mën a fekkee seen waxtaan nag dama leen di bàyyi ngeen waxtaan entre yaay ak doom maa lay xaar ci oto bi. ay doom yow de doom ju baax nga. <laughs> na la nga ngi si jàmm. mënuma nekk ci jàmm parce que xawma ci loo nekk ak foo dëkk doomi nit ku baax nga te dama leen yar ci diine sa sa sœur yaa ngi nii ak sa frère yi yiw jullite yow nga nekk di def yu kenn xamul defe nga ne lii nga def goro pot bi rafet na ah lii nga def goro pot bi war nga ko koo def momo bu ray momo mooma ma li metti na ci man de te yow xam nga ni waruma son na torop ci dila xalat bul sama liggéey dama len yar fu ma leen yare son ci yeen ba ngeen mag dimbali ma ngir yalla fuma tollu dila di fuma tollu sama fitu togul tout le ngi xalaat moomoo ndax mën nañ ko rey gisoon ni ñuy reyee xale yi léegi. wax loolu soppeekul ngir yàlla bandi yi ngay àndal bàyyi leen doo bandi ne te laisse pas des gens nan laa mën a def ba nga soppeeku yow xale bi la doom wala danga maa bëgg a rey rek benn yoon. ku la def lii. mama. day balu ak bu baax dama ne balu ak yomb na lol. ma balu ak ba pare nga wat ci li nga nekkee Dedet. yow kay da ngay ci kër gi nekk nit. ay mo mo dimbalé ma ay mo mo dimbalé sa ndey sonn na ci feebar na te sonn na dina ya, té. ay mo mo dimbalé ma ngir Yalla yonent bi Mo mo dimbalé sa ndey. Emosun nangir ya lirde. Ya man yo bulu bulu. Fy, det kan jeg ha ah c'est vrai qu'il ma jaaxal temps yi. sa yaay dafa gentil trop. dafa bonal. eh lu ma toog ma def mu apprécié ba pare xoolal su ma toog sax ni maire yi presque ñoom ñëpp ñoo yem mais c'est compréhensif seen doom yu góor yëpp seen chéri la donc suñ leen gisee ak beneen jigéen dinañ la jéem a testé dinañ la napp xam nga te par rapport ak loolu aussi dama la ci félicité mosuloo ko dépassé mosuloo ko tontu tontu bu ñaaw amul benn manque de respect bu am entre ak sama yaay. sa la man xam naa ni sa gaayam la moo tax parfois dama dégg fa ngeen di toog di ma jëw rek. jëw yow sa yaay da laa bëgg torop moo may sax fu ma waxee si yow. sama gaayam la mais réew. non dañu gëj a génn dañu gëj a génn mais bon. lu tàmmoon la aussi lu doon def souvent la man sax maa la ko tàmmaloon laa <laughs> ma dem ma ci lenn. C'est ma benn question bien, qui m'a tu m'as accompagné maintenant na mais tu es là on est toujours là sans la wax. mais c'est normal. Mm-hmm. mais tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu. non non non, non, me ah, a fàttaliku ay souvenirs yu yàgg avec <laughs> ta robe jaune là je sais pas. eh c'était pas une robe c'était une jupe. une robe non. Je non une pauvre fille.

waaw sa yaay. sama yaay nangul suñu relation lu mu fi wut. t'inquiète pas jàmm ko fi andi woon ñëw na seet si ma ñu waxtaan. lu mu la wax. et puis sax dem nañ ba waxtaan sax nee na ko expliqué nga ko sama passé. mu xawoon am choc tuuti nag mais waxtaan nañ moom waxtaan bu rafet ma kontaan ba dee vraiment ñaanal nañ ñu bu baax feeste nañ bu baax tamit. sama yaay moo def la. waaw. <laughs> bett na ma bettu ndax xam naa ne que sama yaay jaral naa lu ne si àdduna. Mm-hmm. fu ma tool ci moom moo sori xamoon naa nekk day metti rek mais tôt ou tard sama yaay dina nangu suñ diggante parce que lu ma bëgg suba ba ngoon bëgg na ko. dama lay ñaan lenn. mooy lan. am na loo xam ne que dama ko mës a rêvé que dama ne woon su ma takkee jabar moom suñu demee ba lune de miel ñu wut benn hôtel boo xam ne que au bord de la mer lay doon. <laughs> et li nga wax dafa neex sax.

dama ne la nga génn si biti dama la soxla léegi léegi maa ngi sa buntu kër taxaw. wax ma loo may doy nga may doy lan génnal laa la wax aussi non mu dugg ci biir léegi wax li ma lay wax sa kanamu jabar. fan dugg yow dama dof wala xaar ma xaar ma maa ngi ñëw léegi léegi léegi xaar ma. jeexaloo sama sama nañ bi. aywa kay na lekk. non génn sama benn xarit moo doon woo si suuf mi ngi si suuf. Julie kay guddi bi heure bi non heure bi dara nekk si oto la gaar. sa ban xarit la sax. non bàyyi sama xarit yëpp da ngeen a xam noo leen xam rek. waaw Julie kay wax ko mu yéeg ngeen toog ci salle bi. non bàyyi vite fait rek maa ngi ñëwaat léegi. lune de miel bu mu la doon wax bàyyi ñëw yokk si miel bi suukar. fan nga jëm nii où vas-tu comme ça. monsieur Lopez da nga bëgg a xam dem je te quitte. Là, mais da nga dof wala la. wax nga dëgg dama dofoon waaye léegi wér naa pëgg lu nekk daj naa ak yow ci sëy bi ma muñ ko toxox mu nekk toxox xanu mag muñ naa ko toutes les souffrances possibles imaginables j'ai eu à l'endurer et je suis restée par amour pour toi. J'ai jamais pensé que tu aurais traîné le nom de notre famille dans la boue. pour une minute, tu fais le buzz actuellement. Tous les journaux internet, ils ce je avant, il y avait Mati, hein Eh oui. J'étais au courant pour Mati. Mais toujours pour l'amour que j'ai pour toi et pour l'union de ma famille. Waxuma la dara Charles. sutura bu je jox là. Je ko def naa la ko waaye yow je ne suis pas man góor laa dëgatu góor laa te man dama am samay nawle ne me ma pas, supporter damay dem ce yoon. laisse-moi ça. tu ne peux pas me faire ça. écoute chérie fi ma mes amis m'ont abandonné mes frères de parti m'ont lâché je ne comptais que sur ma famille pour au moins me soutenir. Et tu m'abandonnes. Nabou nit nga Nabou man je suis un homme marié tax nga ba ma fen maay laa fi taxaw di wax ak yow à 7 heure pour yow loolu yoon la. Sir je sais pas si tu es un homme marié ou pas sama yoon nekku ci xam nga lan la bëgg nga jox ma sa nopp bu baax te nga déglu ma bu baax li ma lay wax Sir dama ëmb. Nabou fo jëlé ëmb. fu ma ko jëlee dama ëmb te yow mi yaa ma ëmbal Sir. commencé di nga sa waxu dof yi. daaw gëmloo nga ma ni ka da nga ëmb fekk ëmbo xolal duma golo bu ñuy nax ñaar yoon so buggee sa papa dom dang koy dem wuti ji yaa ngi dégg lu ma la wax ndaw nga pour yàq sama diggante ak sama jabar mënoo si dara demal tëddi nga nelaw gis nga si li ngay wax ni intéressé wu ma sama yoon nekku ci lijjanti wu ma ko sa diggante ak sa jabar lenn laa bëgg nga xam ko mooy que ni doom ji yow yaa ko moom te di ko assumer décidément xam nga yow dama doon laam-laame ndax da nga dof ou pas. yaa ngi may gaañ. mais là je suis sûr à 100 pour cent que t'es folle. te soo bëggee sa baay doom da nga koy wuti ji nabu juruma sa doom yaa ngi dégg lu ma la. dama dama dof mais bien sûr tu le savais pas mais Sirman je suis folle de toi yow tamit bëgg ma ba dof moo tax nga def ma lii may def ndax forcé wu ma la dara. soo yaakaaree sama déggante man ak yow dafa jeex. tu te trompes sir ndax doom ji moo ñu nar a lii waat ma yow dañuy nekkaat par force. nga ne da nga fen sa jabar ba ñëw fii delluwaatal nga xool loo koy fenaat te nga jéem a débrouiller wu xam ni doom ji yaa ko moom te di nga ko assumer su ma la ko waxee nag bàyyi ci xel ndax xam nga de quoi

Salah ça explique-moi ça. yow li ngay attends je t'explique. Tu da nga am expliquer. attends écoute. Eh. s'il te plaît. dama lay laaj lii lan la. Edu di nga eh, sa yaram bi ngi ci tu es presque nu. gis photo yi loyer gis nga 500000 yi bu ma ko ëndee di fay laajoo ma fu ma ko jëlee kon toogal ma expliqué la. eh yow tu te fous de moi mais man. bisimilah. non amul bisimilah yaay xool nan nan la lan moo nekk ci photo yi. boo toogul eh, nga naan ma boo toogee ma expliqué eh, am a eh, expliqué. Edu lu xew. waaye doo ko ko laaj moom mii taxaw nan la li nekk ci téléphone bi. lan mi ngi nii toog du la ko wan waaye fa ma toog mënu ma toog xoolal xoolal photo bi nan la ah, wan. waaw toogal ma pare ma la jënd ko. waaye yow ma réew ah lii li mu doon sala lu xew man kat lii moom bisimilah lu xew si ba jaara ah. man man kenn tooñu ma Mero yow yaa ma tooñ. Ah, ah. non franchement yaa ma tooñ. parce que lii soo ma ba non non yaa ma déglu ma dama la ko ñaan déglu ma lii soo bàyyoon ma rek la ko à ma manière depuis le début du ñu àgg fii parce waxoon naa la ne la amul xaalis bi liggéeyu ko na ma bàyyi man ma xool sa bopp lan la. waaw lan moo xew. te wax lu xew du ya, la ko wax mi ngi nii toog du la ko wax lan la def ay photo yoo xam presque yaramu neen la def yaramu neen photo mais na ko wan nala la ko wan téléphone ma ngi nii waaye ya, da ngay ya, dal gitu ndànk mooy liggéey loo mën a gis yooyu sala booy def loolu nga tàggoo ah mooy Edu da nit ku baax après mu wax mu naa ma loolu la fayee kër daay doo ma déglu nag Edu ah yu so meree da doo déglu nit ñi Edu nga am ay nawle say dëkkandoo yi du leen sóoraale chaque jour Edu Edu Edu sala Edu sala doo doo sóor loolu ah ma may man ak yow dong ñu man ak yow dong ñu doon waxtaan kii ko ah, mer na de waaye yow xam nga lan la bu ko def problème moom bu jàpp mer su meree léegi mu génnaat ci baa ma topp ko léegi ba xam nu mu def et du moom ni mu meree mosu Bachir yow lan ngay def fii kañ nga euh, génn merde bu ma xulli sa bëtu dëmm yi xamul nga ni dinaa génn nga yaakaar ni jël sa éternel. Bachir dafa ndànk ci mbedd lañ nekk. amul lu may def ndànk yow yaa calculé waa mbedd ma lijjantiwu ma waa mbedd li ma ñor laa lijjanti si. Marichou am na jëkkër. elle refait sa vie. ma wax waxi ci moom lijjantiwuma jëkkëram. kan mooy jëkkëram mooy gaañ boobu ma fekk ci shop bi gaan bu yambar boobu lijjantiwuma ko kooku am sax lu koy wax man li ma ñor mooy Marichou Marichou laay lijjanti si bu fekkee da nga yaakaar da ngay ñëwaat pour yàq àdduna Marichou man ma bàyyi la ci ndax. mais sama àdduna la Marichou yàq sama àdduna la Marichou yàq li ma def ci kaw suuf yëpp Marichou moo tax ma def tëdd jël ndax Marichou te benn yoon la ma seet yow léegi lan nga bëgg lan. gis Marichou récupérer sama doom. ngeen ci sa xel Marichou mënoon ko gis te doom booy récupérer amu fi. ban looy wax nii. loolu du yaa koy wax sax. loolu ci gémminu Marichou lay jógee te ñaar moo am nga indil ma Marichou fii wala ma dem fekk ji ko fi mu nekk. Bachir sañ nga loolu. lu ko raw yow xam ngeen ma bu baax bu baax caga yu ngeen doon. Bachir Bachir taxawal.